Euh, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, souvent quand on parle de justice, on pense uniquement à la justice pénale, mais basée à Dakar ou bien dans les grandes villes. Alors que non seulement il y a, une nécessité aujourd'hui de protéger le citoyen euh, au fin fond du Sénégal, comment il doit accéder à la justice pénale de façon efficace, comment les euh, paysans par exemple devront accéder à la justice en matière administrative, surtout en matière de contentieux foncier. Souvent, c'est des contentieux, souvent pas tout le temps, qui sont vidés par la chambre administrative de la Cour suprême. Et aujourd'hui, considérant que la chambre se trouve au niveau de Dakar, comment on devrait faire la décentralisation de, la, de cette là au niveau territorial pour que ces populations puissent y accéder. Donc, c'est des réformes, en fait, ce ne sont pas des petites réformes qui vont permettre d'asseoir une justice debout, mais c'est des grandes réformes. Bien sûr, euh, il faudra davantage le magistrat. Il faudra, il faudra davantage crédibiliser le magistrat. Il ne faudrait pas qu'on dévalorise, le magistrat. Il faut valoriser l'existence, euh, les conditions du juge. Euh, euh, a oui, on n'a pas un problème de justice, on a juste un problème d'homme de justice. Pas tout à fait, on a les, deux. On a un problème de justice, on a un problème également d'homme de justice. Donc il faut que les réformes puissent concerner non seulement les conditions des hommes de justice, magistrats, avocats, euh, huissiers, greffiers, etc. Il faudrait également que la réforme ou bien les réformes concernent le fonctionnement, l'organisation de la justice, mais surtout le service public de la justice. Et c'est là où on attend fondamentalement. Et, et, quand on parle de justice, ce n'est pas uniquement qu'ils veulent appliquer le, le, le, droit, n'appliquent que les textes qui sont en vigueur. il faudrait que dans ce dialogue, qu'on Euh, la commission des lois de l'Assemblée nationale et l'applique. Si la loi est mauvaise, elle l'applique. Donc on doit, si les conditions d'un mandat de dépôt dans le cadre d'un contentieux sont réunies et que le magistrat est obligé de l'appliquer, euh, euh, de, de, la, une justice en dehors du droit. Une justice en dehors du droit. Et il, faut, il faudra éviter aux magistrats d'appliquer une justice en dehors du droit. gratuitement modifier, réformer les textes législatifs et réglementaires en matière pénale, civile, commerciale, économique, etc. Vous avez d'autres questions Voilà. Ci wolof, monsieur Seck, gis nañ ni. Nous vous informons que la pause café, c'est au niveau du hall du bâtiment. À la reprise, vous pouvez rejoindre vos commissions pour les travaux directement. Les hôtesses vont vous indiquer les salles de travaux. Merci. voilà mbokku internet yi ba tey euh, ñu ngi euh, desandi fi nga xamante ni moom moo di ci dialogue national bi gannaaw pause bi nga xamante ni euh, daal dinañu koy amal ñu jël ki nga xamante ni rek moom moo di Pape Djibril Fall rëy rëy lañ ci am mais enfin justice bi dinañ ko réformer ci ni nga xamante ni noonu la ko askan bi bëggee te plateforme bi nga xamante ni moom la présidence de la république xalaat ak bëgg-bëggu président muy jub jubal jubbanti dégg nga léegi rek nee nañ recevoir nañ ci lu mat trente mille mhm. euh, euh, interpellations donc yée yéene ak yaakaar bi nga xamante ni moom la am ñu sonn lool ci wàllu justice sonn ci lool jamono yi nga xamante ni at yi ñu romb depuis 1960 daanaka da dinañ am ay réformettes mais souvent duñu am de vraies réformes en profondeur xam nga ne am na yéene ñu définitivement ñu régler ces questions la justice dafa son dafa sonal ñëpp moom ci boppam euh, gis nga ko daanaka prison la jóge dem palais donc aujourd'hui il est très bien placé pour comprendre li nga xamante ni moom mooy les dysfonctionnements qui existent au sein de la justice pour ñu mën ci indi nag ay réformes définitivement donc yaakaar bu bëri lañ ci am euh, nous avons aussi la chance d'avoir un président boo xamante ni dafa confronté wu avec la justice euh, ci façon boo xamante ni jàpp nañ ne waruloon mën a nekk donc at yi yëpp daanaka ñëpp ñi nga xamante ni am nañ kaddu yëkkati woon nañ seen kàddu di lu ni nga xamante ni noonu la justice doxee ñu jàpp ne loolu du sagu Sénégal ñoo am nag ay institutions yoo xamante ni tamit yàlla baaxee nañu ko institution libre et transparente et democratique donc loolu nag li nga xamante ni moom mooy ñëw nekk cerise sur le gâteau gën koo rafetal gën koo ñoŋal mooy ñu am justice boo xamante ni daanaka mbaxane dafay doone benn beneen mbaxane du fa mën a am li nga xamante ni moom la yonent bi salaatu wasalaam waxoon keroog ba mu defee fatfu Makka dafa waxoon ne képp koo xamante ni tooñ nañ la ak loo néew néew doole di nga am doole ba ba ñuy jël sa tooñ nga ak loo am doole am doole di nga néew doole ba ba ñuy jël ak jàmbur di ko ko delloo. et je pense que ne balance boobu ñu amee te alxuraan tuddi ko misaan cette balance la équilibre boobu dafa war ñu am ay dis euh, dispositif boo xam de médiation pénale ba nga xamante ni dinañ mën a fexe lépp loo xamante ni mën nañ ko rafetal lépp loo xamante ni mën nañ ko ñoŋal lépp loo xamante ni mën nañ ko baaxal ñu fexe ba mu baax beneen bi aussi mooy la justice des mineurs loolu aussi président de la république indi na ko ci discours am lu am am solo la parce que tey bari na koo xam dinañ ko jël yóbbu ko kaso tëj ko buñ ko tijjee du mën a dem ko te yenn saa yi benn non lieu lay am du am indemnisation ci ginnaaw donc mu ñàkk lu bari ñu yàq addunaam donc justice warul yàq àdduna waaye justice dafa war a défendre ak ak yelleefu doomu aadama. globalement jéego yi euh, jéego yi nga xamante ne régime bu bees bi euh, am nañ ay raisons espérer ñoo ngi yaakaar ne Sénégal dina soppe Sénégal soppee ñëpp dinañ am jàmm euh, réew mi am jàmm nit ñi am jàmm le roi Hassan II dafa doon wax lu am solo te pour répondre ci jéego yi nga xam dafa am décollage par rapport li le roi Hassan II dafa doon wax ne xaw ma développement autosuffisance alimentaire bi du nekk slogan waaye day nekk loo xam dañ ciy jëm bu baax a baax mm-hmm. président de la république wane na yéene bi ak euh, gis-gis bi nga xamante ni am na ko ci jàpp naa ne itam dénk na ko ñoo xamante ni c'est des li nga xamante ni moom mooy le foncier loolu problème bu mag a mag la Sénégal te jéego yu mu ci def am na solo am na dëkk yoo xamante ni tey jii boo fa fàtto faatoo bàmmeel sax doo ko am dañ naan la sa corps bi jël ko nga yóbbu ko donc on leen ay suuf yu dul jeex wala ay prédateurs fonciers yoo xamante bien de chez jël suuf su dul jeex daal di koy jël ak moo ko ba ndaw ñi tey amuñu 150 mètres carrés wala 200 mètres carrés boo xamante ni waxuma la fu ñu bàyyee waaye fu ñu dëkk sax mënuñu ko am loolu je ñu rafet njot donc globalement je pense que ne aujourd'hui ñoo ngi ñaanal le nouveau gouvernement di ñaanal son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye ñu am yaakaar je reviens fraîchement d'une tournée dans la diaspora waaye yaakaar bu rëy la sénégalais yi am les sénégalais de la diaspora les jeunes veulent du travail